lan la de mm-hmm. muy libération Amidia mm-hmm. loolu moom defe naa ni Sénégal ñëpp rafetlu dañ ko mais man sama yaay sax bi ma ko ne Amidia bàyyi nañ ko dafa ne ma alhamdulilah rabbi alamin mm-hmm. kooku moom mu nekk lu nga xam ne daal vraiment jël nit ci ay waxu kasaw kasaw ay accusation yu tagul fedd jël ko tëj ko dix-neuf mois mm. dix jox ko liberté provisoire te liberté provisoire boobu lan ko wudd ba muy dugg

beneen bi mooy di massawu journaliste bi ñu wax mën euh, Maimouna Ndour fay mm-hmm. citoyen sénégalais bu nga xam ni moom tamit dañ ko agressé di ñaan yàlla yàlla fëgg fëgg bopp bi ba mu delluwaat ak si wér-gu-yaramam dellu si njabootam continuer liggéeyam mm-hmm. ci euh, problème boobu nag moom ma ko mayee euh, kii mami mm-hmm. ma wax si tuuti rek mooy fi sujet sénégalais ñu war bàyyi naa naaféq bi ñu nekkee Bon, je préfère nous faire le dernier point. Ok, comme ça, tout le monde va après nous dans les lois d'amnistie, mais mm. période du 1er février 2021, 25 février 2024. 25 février 2024, hmm. moi dimanche passé, je suis allé voter. Hmm. Légui, février 2021, l'an mois, l'an mois, il dit période 2021, bataille.

munitions yi manqué lu tax mu manqué. Mhm. fu fan la dugg yow defuloo enquête. Mhm. ba xam ñii ñu rey kan moo leen rey su fekkee ba dañ ko gas suul xamuñu ñan ñoo leen rey gis nañ fi ay nit ñu nga xam ni ñëw nañu ñu nii mhm. ay ay ay ay ay civil lañu solu ñu tënu. nekk ak les les les les FDS di tiire si ay nit di ñenn ñi di dugg ñu am ñu xam ni te gis nga gis nga yàlla des fois man jama trouve jama di que ni dañu toll période boo xam ne yàlla si boppam. moni pour ma Sénégal il faut ñu toj lek tabax. Hmm. tay imagine nga tay bu dañ naan way kasso yi dafa fess yi ah, dañuy prisonniers yi dañ leen di torturer ci commissariat dañ leen di torturer à vue que ne ko kenn ñu bari ko mais tay détenu yi génn yépp nga nga déglu benn détenu bu génn lim lay wax ak ku génn Saint-Louis ak ku génn Mbacké ak ku ak ku Dakar même chose bi nga xamni ñom yi génn yépp moom lañu torture ils ont été torturés ba pare mu am ay sekel waa ji rasta ñuy dagg rasta yi gis nañu ni ñuy def bopp bi ko doon dañ ko mel kuy faaf kuy kuy fees nit Pape Abdoulaye Touré gis nañ ko. dañ ko torturé euh, euh, ni mu Azoura Fall mooy ki daan yéeg yore drapeau bi ci ginnaaw Ousmane Sonko. ba muy prison il était bien important. Azora Fall léegi il marche à peine te kii la yore. békki la yor. mu am ñu nga xam ni ay ay ay témoignages yu yu xam ni dafa lay tiital ku ñu ku ñu wékk ci awra góor góor bu awraam yàqoo mooy kooku kooku addunaam yàqu na. te loolu ci ci ci ci kaso bi kaso bi kaso kaso la am te li ci gën a metti te encore une fois mooy bu fekkoon sax dañ naan ay ay góor ay ay ay ay ay nu ay ay force de l'ordre góor wala ay ay garde pénitentiaire góor ñoo leen def loolu. mais ku déggul tamit famille yi génn prison euh, cap nu mu tuddati temps pénal mais même chose lañ lay wax ay seen moromu ay jigéen ay garde mais mais mais après finalement doo dootoo comprendre waxoon naa fi nee naa ne benn jour Sénégal li ci gën a metti mooy bakkanu à doomu aadama la ñu fonkul France seen i manifestation ñoo gën a métti gis nañ fi gilet jaune seen manifestation ni mu méttee mais doo rey bi ci mujjee mooy le le le jeune là bi ñu a dama 17 ans. contrôle qui, mais ak mais rien ñu fa kenn pas justice. mais les mu am nga après dañ bon c'est pas grave nga ñoo def di période dañ effacer mais mais attends mais Macky Sall du moment où on a mm. parce que ko. Macky Sall ay il y a ay làggaluñu ay doomam torture ñu ay doomam du Macky Sall moo war a baale ñi nga xam ne ñoom la ñu tooñ ñoom la ñu rey seen i jëkkër ñoom la ñu rey seeni rey seen i sët ñoom rey seen doom làggal seen ay doom ñooñu ñoo war a baale Macky Sall amul pour baale yàkkamti yàkkamti bi yëpp xam nañ ko parce que tamit affaire bi du du du dafa am dafa am leneen lu nga xam ni comme ni ko kii waxee Tidiane dafa nekk ba nguuram di waaj a jeex mais dañu bu ñu fàtte ni à l' international y' des plaintes. et puis dañu joxe ay tur def ay enquête joxe ay tur te ay tur yooyu ñu joxe dañ ci cité ay de haut gradé des DDFDS dañ ci cité ay nit léegi ñooñu lenn moom xam naa ni moom moo si dal saba xel liñ naan li loxo def loxo da koy dindi seen loi bi moom hmm. régime day changé keneen ñëw jël jël ki seen loi boobu teg ko fële ñu reprendre mënuñu munuñu mënuñu euh, euh, euh, am jàmm si dëkk bi hmm. tànk ñi nga xam ne dañu def naka sudul noonu teguñu leen ci yoon mais lii permis de tuer la su fekkee ñëpp dañu rey ay nit jàkkaarlu doomu aadama sa sa sa mbokk manifestation parce que am na lu ko metti mu koy naqarul nga rey ko ci bu subaa ñu ni ah garaawul yow yaa ko rey par exemple imagine leen booy bi ñu reyoon Parcelles Assainies te policier bi visé ko de loin de loin jam ko ci bopp léegi dañ naan kooku daan garaawul quoi non non te loolu enquête kooku moom xaw ma kan moom ak le numéro 9 la japp len c'est très facile très très très facile barki demb gis nañ fi daw sos ay fata baax mm-hmm. et puis si gën a doy war du ay affaire yu ñuy wax nit ñi diko wedd ay vidéo mo am ay preuve à l'appui dàq ben manifestation mu tarxi ci ndox nga yoro auto jaar ci kawam ñu ne léegi kokon ko da da da dañu war effacer hein non loolu mënul ne Macky Sall kenn xamul limi limi li muy man nak lire na ci exposé des motifs xam na lenn daal xam naa ni gis naa ko xaw ma nag ndax lii moom mooy loi bi ñu bëgg a voté wala am na leneen beneen beneen beneen beneen loi bu ñu nëbb parce que fii gisuma fi ñu ñu ñu amnistier ñi nga xam ne dañu def ay crime économique gisuma ko fi ay affaire yu ñuy wax naan ay ay ñuy jàppoon ak fii ak à l'étranger ay affaire kii yooyu criminel ak yooyu ay fi manifestation yooyu mais gisuma fi ñi nga xam ni peut-être que xam naa ni dafay diluer un peu

ku ndaw si naan ko yow lu tax rek nga lu tax nga rey sama jëkkër. moo explique ko explique ko après ñooñu dañuy baalante mais imagine tey lan la war lan la war a jur léegi bu fekkee sama am na ay Sénégal xam ni gis nañu FDS xam nañu yenn FDS yu nga xam ne ñoom ñoo commettre ay crime ñu loi loi bi jàll. ah mais ñooñu mën nañu jaar si suuf de de régler ko seen bopp te waruñu egg foofu il faut que ñu ñu ñu teg affaire si yoon dañ daan waxoon ni force doit rester à la loi. ah mais ñii lan la ñu bëgg a def ils veulent fuir la loi yow dañ la wax nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga tuddi te gis nga lii bu ñu ko defulee manifestation na amaat gars yi gën a violent waat envers les les les les les les manifestants parce que sachant que ni ah comme ñu lay def nañu ay ñaawteef dara fekku lañ fi ñun mun na mun nañ def ay ñaawteef mais dañu rey ay nit ak ak ak bal il faut ñu situer les responsables xam ñan ñoo leen rey xam ñan ñoo joxe auto ñan ñoo joxe nu mu tuddati Euh, les, les, les, qui euh, comme les, les, les, mais pourquoi yo pourquoi sénégalais nous nous toll fu nga xam ñu civilisé effraction nga ko mais nous traité nous traité manifestant Nous, nous dans le pays occidentaux traité les criminels criminels wala dugg si ben marché ramasse fa ay 20 une vingtaine de personnes mais do gis fuñ ko jappé diko diko diko brimer diko torturer mais dañ koy japp yóbbu ko tek ci ak ñun lu tax ñun. te comportement ñun biñu am ñun les les les noirs mom mo tax tuba bi mënu ñu respecter parce que ni tuba boo fonk doomu aadama yow nga rëy nit ki ci sa ki bopp quoi japp ay torturer parce que bu dégg Pape Ablaye Touré niñ ko def et puis il a cité deux noms. Il y ñu xam dañu cité dañu cité ay ay ay ay ay ay c'est ay bureau euh, euh, euh, le député Guy Ousmane ay mais amna ñu ñom ñom différents. différent ak commissaire commissaire Fall bi nga mission ONU pourtant ñooñu dañu cité ay ay ay ay tour mm-hmm. ko pour détenu dina la wax bañ ma tel

xool les coupables yi nga xam ne dañ leen war a daan ñu daan leen léegi nag ab bare famille victime yi nag bu leen neexee bu leen neexee mais si noonu sax est-ce que du au-delà de le fait que sax sortie nga xamante jotoon na am ci biir réew mi parce que su bu ñu fàttalikoo tuuti ci mars wala février 2021 suñu ay autorités compétentes ku ci mel ni garde des sceaux ak ministère des affaires étrangères gisoon nañ sortie ñu amaloon ci chaîne internationale yi avancé que ni réew mi dafa am ñu ñu rax des forces spéciales wala

bul fen hmm. del wax deug lu mu metti metti wax ma dëgg assumé man noonu laa yore samay doom dama naan ne lu mu metti metti rek ya jël sama yef waxal ya ko toj yoo xat waxal mais bu ñu toogee gis ay kilifa bu ci muju Ismaïla Madior Fall amna na fu mu dem ben ben sommet la xawma ma lan la wax ki kii euh, Turquie hmm. mu ni Sénégal euh, fusi tàkku fi hmm. dara tàkku fi mais mais Ismaïla Madior Fall dafa fàtte ni nous sommes en 2024 monde bi village planétaire là Turquie dafa am ambassade Ils ñom ñu xam li li xew hein mu euh ki nga wax ministre de l'intérieur bi Antoine Diop. Antoine mais Antoine ak les procureurs ay ñum procureur nous yi def sortie ay Kabiline mine antichar mi mais nous, nous ñëpp xam nañ li ñu c'est-à-dire que réew bu ñu Nous ba xam ñu ñoo mën a toog ñun les yeux dans les yeux 18 millions de personnes de de de d'individus di wax xam ñom ci bopam xam nañu li ñu wax du deug. seeni famille seeni xarit seen ñep li waxal xam nañu lii li ñu wax du deug. bu boba rew momu neexu la défar. Motax bu légui léegi léegi fi gis fen fen nit ñi les gens mentent à l'aise nit ñi dañuy fen fen te jàpp l'aise parce que dañuy tok ne ah mais kilifa gi mo mën def mo mën a taxaw jàkkaarlu ñun wax li comme comme comme dara nek ci après génn loolu loolu moy suñu problème. liñ ñu jaayoon yëpp comme ni ko kii di waxee maa emprunté euh, Tidiane euh, terme boobu li ñu jaayoon yëpp ñëpp gis nañu li ñu jaayoon dara amu fi ba ñu waxee ay dañoo wax ay terroriste bañ ko waxee mois de lan lañ ko wax mois de mars 4 avril la ñu toog ci plateau télé fii défilé mm-hmm. les autorités militaires ne fii kenn raxuñu suñu territoire territoire parce que tamit nañu waxante dëgg territoire territoire bi ñan ñoo ñoo ñoo koy assuré gérer euh, stabilité bi ce sont les autorités militaires ñoom ñoo toog ñu ni ay affaire wu ay ay terroristes ak ay ay ay infiltré nañ ko jël ñu teg ko fële problème bi mooy jaay nañu lu nga xam ni dem nañ ba sa cëppaandal bi xam nañu loolu dara du ci dëgg affaire loi si bi nag Macky moo xam peut-être que bon instant bi toll na si jéem a defaraat sorteem parce que jaaratul dara jaaratul dara dem nañu ba léegi man li ma gën a metti mooy ay dëkk dëkk yu Afrique yoo xam ni tekkiwuñu dara duñu dara Les plateau télé Sénégal Sénégal. mais mais côté démocratie il y a gens non non non, non, non non non non, non, non non démocratie non non non non non non non non non non non non femme non non non non non non non signé non de ce qui se passe actuellement au Sénégal président mbéy nga Ousmane Sonko de toute façon li am ba devoir de vérité il faut mu am légui nak dilemme bi am moy wa que bëgguñu loi d'accord ñu ci loi d'amnistie parce que Ousmane Sonko dar na wala Diomaye wa APR tamit majorité bi tamit nee pas question bëgguñu loi d'amnistie bi qu'est-ce qu'on va faire ndax Macky bi mes députés

ñaanu moom ko yàlla mais ma amoon njaboot yu bokkoon si ñu ñu faat dëkkandook ay député ñu yóbba loi loi bi ñu foote ko mais maak ñooñu sam suñu dëkkandoo dootul neex te député yooyu dañu fàtte ni après nguur gi après Macky bu demee ñoom ay sénégalais la ñu fekkee Sénégal la ñu am nan la ñu fi dëkkee nan lañu fiy dëkkee doxee xool mais nag attention tamit ah parce que Côte d'Ivoire mm. jàpp nañ ci Laurent Gbagbo mm. yóbbul ko Alassane Ouattara kenn reyu ko mu ngi nii delluwaat na ci dëkk bi mm-hmm. Nelson bu falloué, faluwee bokk na ci décision yu mu njëkkee d'abord c'était de reconcilier les Sud-Africains mhm. parce que dama déglu ben, tubaab mu ne ci garde procès présent bi la bokon. mais néné, ne bu mu Mandela mu falu il doutait de la sincérité de Nelson Mandela parce que dafa ne ki day wax rek ñun ak lu ñu def nit yu régime apartheid ñi dinañu fayu duñ ñu mhm. mais néné, ne bu mu ñëwee Mandela fekk ko fu mu taxaw Mandela da ko je te regarde comme ni may xolé ñeneen vous êtes tous des sud-africains couleur bi waru leen différencier Vous xolé côté bobu au moins il a facilité beaucoup de choses légui les partisans de l'amnistie ils peuvent avoir raison comme ils peuvent avoir tort. mais les partisans aussi amnistie bu am. mais Afrique du Sud vous ah. nga wax amul won amul commission vérité vérité réconciliation amul woon après non xam nga bokkul ñun ba léegi ñu niveau Afrique. wa mais léegi nak bo tax nak ñun mënu ñu sauter les étapes. wa waaw mais c'est que fii xoolal Mandela doomam dañ ko rayoon. voilà dégg nga xoolal gis na kii gis nga loi d'amnistie bi. loi d'amnistie bi. moy mais xam nga fële Afrique du Sud apartheid ko jitu mëno ko sauter. wa rek Afrique du Sud apartheid la. Rwanda seen réconciliation seetaan naa ko. foofu génocide mo fa amone mm. fi li nga wax non la manam fi dafa am lo xamantene ay bavure non non non non non xam nga man pour man hmm. am am mais. c'est pas c'est pas ça euh, seulement. non c'est pas c'est pas ça seulement. bente. xam arme. Mhm. pointe nit lu ko ci ah. ba ci biir c'est pour l'intention de tuer. pour immobiliser mais on a vu ici Mamadou dragon alors qu'en réalité le rôle de la police c'est pas tout simplement de tuer ses concitoyens ou de tuer les citoyens au contraire mon est préserver bakkanu ñooñu comme ko mhm. terrorisme bu ñuy wax musuma dougal sa sama bop sax waxu terrorisme xam nga man gis nga fi buñ fi exploser explosé dara damay gëm né état bi mom moko def pour des raisons yo xamantene c'est personnel à l'état on a vu ici numu mu euh, Vladimir Poutine période bu mu nekkee premier ministre euh, Russie euh, acte yu ñu doon tek FSDB moko ko doon teg xam nga attentat yu ñu doon def non c'est les services secrets mhm. russe ñoko ko doon def pour au moins mu ñëw comme un sauveur donc bu ko fi état bi defone loolu sa yàpp armée sénégalaise la mhm. né ay terroristes dañ fi nek armée sénégalaise dafa di armée bo xamantene ñepp xam nañu ne sen jambar mhm. c'est pas pour rien devise armée bi nek on nous tue mais on ne nous mhm. déshonore pas à la limite ça, wax ay terroristes dañ fi prospérer wala dara C'est humilier notre armée. armée bi barke alquranil karim lépp lo leen fi manta bay bu fi duggé du fi prospérer Sénégal superficie bi mu ngi ci 172 km 2

Mhm. géant la Afrique vie économie vie population démographie vie aussi vie armée nga jël fi pays yu bari fi ci sous raison bi Mali wala affaire xam terrorisme. Mhm. mais sandi euh, cocktail molotov nga ne terrorisme la waxu la.